لا إله إلا الله لا إله إلا الله آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مك جلي مك طالبين جلين دلين باحت دلين سيارة دي جدل بني يوبي سرين دون تخاري بنيان نعم، مياك فتوير بنيان نعم، سرين أمد مورم نعم، بنيان مياك فتوير

dolliwaat lenn rek ci lim fi jiitaloon ndax ba liggéey bi tàmbalee ba tay mi ngi ko ànd xam ni Modou benn liggéey bi ba tey mi ko ànd ak sëriñ xam ni ci wàllu sëriñ son mu indiwaat ay karam yu bari ànd ak boole ko xaalis yu bari leen da ko njabootu Cheikh Mortal Fall yëpp nag ñu di ko ñaanal mu yàgg ci wér mu lim yéene liggéey Cheikh Mortal Fall lépp mu àggale ko ñu ànd moom ñoom njabootu Cheikh Moustapha Fall yëpp ay ay rakam ak i magam yi soxna yi ak ay doomam ñëpp rek ñaan suñu borom liggéey bi yàlla gën a yàgg rek Fall di sant bu baax di rafetlu taxawaay waaw. <laughs> waaw ñëw na ñaar téeméeri mètre waaw mu def ñetti téeméer. mu waaw. Oh, mi ngi oto baa ngi ñëw sax. ak sa noonu la baaxee faa daa jeex noonu la baaxee. mu ñëw